jullit yi daarul xuraan ca Touba Daaru Marnaan ci njiital Serigne Mactar Diène di daara ju nu sancoon ci atum 2006 mu nekkoon ci mbaaru seng ay ndongo yu bari mokkal fa alxuraanul karim daara jay dox boobaak léegi ak jéego yu am solo macha allah ak ñaanuk Serigne Saliou Mbacke xaadimu rasul mu nekk léegi complexe scolaire franco arabe bu méngoog jamono état bu Sénégal reconnaître ko ñu fay jàngale alxuraanul karim arabe français yeneeni langue majalis yeneeni xeeti xam-xam ak njàngale métier di formation professionnelle muy complexe scolaire franco arabe Mam Awolo ca Daaru Marnaan ci njiital Serigne taax jenn am na fa cycle élémentaire moyen ak secondaire ndongo yi di fa génne ki lijaasay certificat d'étude BFM ak baccalauréat di diplôme d'état daara ji li ko tax a jóg nag mooy jàngale xam-xam ni ko ku tedd ki Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bëggee complexe maam awaloo ca daaru marnaan taaru lool ànd ak bépp jumtukaay bu ndongo yi soxla ci seenaw nekkin ak jàng ay taax yu mucc ay bloc A ba ñu duppee ko daaru Alimu Kabir bloc B bi njéene Lagan bloc C bi Touba Xelkom ak complexe scolaire franco arabe maam awaloo ci njiital Diène njàngale mu mucc ayib ak ay jàngalekat yu xereñ lool yéen waajuru ndongo yi su ngeen bëggalee seen njaboot njàng mu baax ak avenir bu mucc ayib jokkoo ak ñoom mbind mi tàmbali na weeru août ubbiteeg école bi weeru octobre incha allah ngir jokkoo gi 33 978 90 90 wala 33 978 90 91 77 256 12 82 wala 77 404 franco arabe Mam Awolo ak njiit la Serigne Maktar Diène benn di ñaan xalifa bu tedd bi sëriñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi lool te ànd ak day defe léegi émission sax dama koy jox mu tënk ci loolu bu ñu paree ñu jox la kàddu gi nag soo ko jox sëriñ Saliou bu ñaan da xam nga di suba aussi nag c'est le jour te fi ne àddina bi yëpp ñi ngi bàyyi xel direct yi ak télévision yi ndax bi si moom seen fan euh, Mamor si nii jege si jege si jege si Mamor dégg naa fan yi dañ laa may seet de waaw ah, ah, ah, kon baax na moo waaw dangaa gën a xees. jërëjëf Baye Ibra sunu xol dafa seddati sëñ Ibra ñun ñi nga xam ni. 1995 bi ñuy sos kuréel gi bokk naa ci ñi jël super mu wàcce ma croisement Cambérène ma dox ba fii booba amuma paas bu ma indi fii xale laa kuréel gi nu xam fa mu tolloon xam fi mu egsi ñu yàgg koo jox ay jàmbaar waaye kuréel Hizbut Tarqiyyah dalal na xel yi seral na xol yi waaye ki xàmme ker ci guddi moo def lépp muy Cheikh Mouhamadul Mountakha soxna Soda jërëjëf kii toog ci suñu ginnaaw di sunu sëriñ muy suñu xarit di sëñ Mamoun wax ci moom doy na sëkk Mamour Ndaw muy sëriñ Saliou Fall sëñ Cheikh Bintu mii doyaat na sëkk maa ngi fàttaliku 2013 mu def les trois jours de ma de sëriñ Ablaye Fall Ndar fële ca Saint-Louis man la yóbbu. keroog bi ñuy mars ba agsi ci buntu gouvernance dama ne ko nan ma may tuuti ma wax ñi taxawoon fii keroog sëñ Youssou dootul am un négro africain bu nu jël déporté la nga dellu loolu faat na keroog bi la mu te toogee gouverneur président Kersan Zule commissaire des colonels chef du service administratif Boyard lieutenant colonel supérieur des troupes Jourquet directeur de l'intérieur par intérim Kalarak médecin principal chef du service de santé Ogaré lieutenant de vaisseau délégué du commissaire de la marine Bassiak conseil privé tutélaire Lamben conseil privé suppléant superviseur secrétaire adjoint Mamoun wax nga ko léegi Cheikh Ibrahima Garmi sëñ Touba da daan rendu buur te li fal baadoola di métti métti raamloo buur ko gën a métti waaye nag géwél daan ne ci koñ kuy yónni yónni ko kuy feeslu woo ko mu muñ waa koñ bi ñëw ci sëñ Tuubaa liggéeyal ko ñetti fan day mujj ña ko daan fees loo koy feesal waaw da koo def uude def ko keneen ak keneen yaa ñuy moom joo ma sa dégg nag guerre boo ma sa dégg maa lay moom moo ko waral kenn ku bëgg ku la moom amul boo doon dox ba reeb yem ci nit sax mu bëgg soxna bëgg ko takk nga ne ko danoo moomoon sa maam mën nga koo xañ séet France keroog bi mu bëggee moom bi ko am Allemagne bëggee moom keroog taxaw nañ maag yow ci arc de triomphe Paris ak sëñ Seex Bintu mii teewal fa Baay Faal yépp nga xam ni booboo taxoon Hitler dem na ba nangu ñaari dëkk ci France di fa naan di fa naan di fa naan ci la ci la waxee woon ne si ce n'était pas les noirs je bombarderai la France dans vingt quatre heures et je mettrai de Gaulle dans un bateau et je lance dans l'océan Atlantique Cheikh Ibra boo déggee sëñ Moussa naan ko soldat sa yaa joxe sa doom fàllulu Fall am na texe dama ne ku bëgg ku la moom amul parce que nit moom la day tax nga ñàkk personnalité jenn waay rek a mës a jóg ñépp ne ko yaanuy moom ki semmal fuuta gàggante gànnaar raamloo doomi soxna yi rendi iblis sa taxaw ci mbeex mi waaw barke Sëriñ Tuubaa fii la taxaw kooku lan ne ko yaa ni te sëriñ bi rek lay moom nga dellu personnalité fi mu ne sëñ Yuusu mi ki diplôme bu demee ba di remplacer homme d'état bëgg sëñ Muntaxa moom ko rek ko ko waral keroog ba moomee sëñ Daaru Asan Njaay ku sant Njaay bëgg nga di sëñ Daaru Asan moom nag gar mi gararar tudd nga ko sànq tubaab bi dañoo xool ba yàgg na ñu ne leen kan mooy Cheikh Ibra Fall mu ne signalement très noir de peau taille au-dessus de la moyenne fronton élargi chevelure crépue et broussailleux œil petit et vif arcade sol solaire saillante bouche grande nez épate alliance dans le pays mariée avec les femmes les plus nobles du Bawol e du Kayor et de Sine Saloum descendante directe des anciennes familles royales indigènes Guit et Drobé ces familles ont été rivales pendant plus de 300 ans ce femme se nommant premier Gagne Siri Fall fille de l'ancien Damel du Kayor Amari Ngone Fall deuxième Gana Diop troisième Koumba Thieleman et tous les deux fils du Damel Ladior. Quatrième, Lalaï Satafal, fille de Sambalobé, tué à Tuan par lieutenant Soviet en 1886. Cinquième, Ben Dafal, Moudok Seigneur Sakanako, ya jikk jibb la soxol. fekkoon nga gaañooy xor-xorol ñi lay taqal ñi lay setal yaa xàll ngir mi ñuy doxe yaa xam sëriñ bi yaa xarañ daawoo weranteekub sëriñ bàjjo bi yaa bari njariñ waane wi yàgg ngay naxe am ngay ngërëm am ay dërëm jël say dërëm jënd ay ngërëm loo mës a am tàbbal këram ay junni faal nga daa joxe jox nga ko àddiyey giléem yu sëfi ngurdu sëfi koom soldaar sa yaa joxe sa doom fàllilu faal am nag texe sa ndaw dadaa dem ba gabon foofu nag maa fa dem maa dem làmbar na maa dem Mayumba un fort verse c'est la première fois nit taxaw jàkkaarloo géej gi naan ko bayaxtahu fil bahri tasta sajara wal bahri muddun wal hawli fajara J'ai signé un pacte au bord de la mer, sous l'arbre, entouré de mes sur les feux des canons. xanaa xamoo sëñ Ibra sëñ Maamoun wax na ko sànq sëñ Fallou Fall xam nga lu tax Seex Ibra yóbbu woon ko Gabon ndar-ndar la citoyen français ñu koy yónnee ay courrier mujj na mooy moom sëñ Fallou Fall mooy xambal sëñ Touba ja bant jalambaan yi maa dem ba foofu te attention de maa yomba ah, waaw waaw leen fii lii laa bëggoon na fii saf sàpp ak Seex tey ku ñëw soxna Seyni Fall am ah sëñ Babacar Mbow waaw waaw borom borom borom Mbàkke Kajoor nga waaw bàyyi rë lay lay la la ma ma eh, sëñ Mamor di ñëw ñëpp xam na ko nañ ci bàyyi xel baax a baax a baax ci Cheikh Rafal la ilaha lii de mosu fi am ah ma ngi nuyoog sëriñ laa ilaaha illallah ay waaji ay waaji ci Cheikh Rafal ndeysaan laa ilaaha illallah ah sëñ Babacar Mbaw nañ ko may mu yéeg fii ndeysaan sëñ Babacar Mbaw na yéeg fii ci podium bi <coughs> ko bàyyi mu yéeg moom rek ndeysaan nuyoo kilifa yu baax yi la ilaha illallah maamoor yoonu ku ne nañu may sëñ Babacar Mbow mu yéeg nuyoo kilifa yi ndeysaan ndeysaan la ilaha illallah sëñ Babacar Mbow mi ngi noonu de sëñ Babacar Mbow mi ngi noonu ciy Mbàkke Kajoor ciy Ndim ciy Mbuujin la ilaha illallah ndeysaan ay waay digal si kër si ay nan ko may mu nuyu sëñ Babacar Mbow ciy Mbàkke Kajoor ciy Ndim ndeysaan moom la waa kër bi yor exposition bi ngeen gis léegi ci biir ndeysaan laa ilaha illallah nañ ko bàyyi mu nuyoo ndeysaan na nuyu sëñ Saliou Fall mu sëñ Moudou Moustapha Fall waaw waaw sëñ Babacar boo paree sëñ Cheikh Bintou Fall a ngi noonu toog laa ilaha illallah sëñ Cheikh Bintou Fall noonu toog la ilaha illallah eh, eh. Ah. bii bis moom mbaa benn lu gën kawe gëw ma ko de Mamor si Cheikh Rafal <laughs> nga ne Marie ak les femmes les plus nobles du Kayor ndeysaan Baye Fall siyaar naa de ndeysaan la ilaha illallah cey ajaratu soodu xuma jërëjëf waaye ciy kuréelu fàttaliku julli géej gi li li tax sëriñ Saali woon ne mooy bisu Ndakaaru ndeysaan Baay Faal ñëwal toog bis mooy bisu Ndakaaru sëriñ Saaliw Mbàkke jàmbaar jàkk waxoon ci sëriñ Saaliw Faat Jaxate ndeysaan ndeysaan waaw Babacar ba euh, Cheikh Babacar Mbow Cheikh Babacar Mbow moo dugg si noonu léegi ak mbokkam yi jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbow yow sa maam Serigne Youssoufa Mbow Cheikh Sëñ Touba la nañ ci bàyyi xel de sa maam Sëñ Touba seexal na muy Sëñ Youssoufa Mbow kon nañ ci bàyyi xel bu kii nga gis jàmbar ji Cheikh Rafal tànn bu mu Tuubaa seexal ko kon Babacar bisimilah sëñ Mamour boo egg jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jaajëf Baye Baye Ibra ki nga doon présenté fi sëñ Touba njëkk a gisee ak Seex ci Zahir. moo fa taxawal Baay Faal mu murit yëpp muy intellectuel nag de haut niveau bind ay livre sëñ Babacar Mbaw mi di jàngale sëriñ tubaab ba tubaab yi di ko topp kon moom gàcc ngalaama mention spéciale bi muy nuyoog sëñ Yuusu sama yaram dafa daw ndax dama ne jàmbaar a ngi nuyu jàmbaar sëñ Muntaxa bërki démb bi ngeen koy jébbal këru këru xaside yi dafa wax sëñ Muntaxa waxam ni wax mais ñu bari duñ ko settantal ñu bari laa wax am na ñu koy setantal xam nga bu ne desi daaya rek desi desi daay yi sëñ Tuubaa ya daayam daan bindee ak desi xalima ya buñ ko dajale woon sax defar kër jal dojuñu àqam xam nga lu mu la bëgg a wax mën naa doon bantub xat xat ban ko xat ban ko daggee mënoo ci junni te desitu xalim ak sëñ Tuubaa buñ ko génne fii ne deux millions du taxaw loxo ba ko laal la amatul njëg kooku sëñ Musaa Ka nee na doxin ba dafa simple mu jekk ay peer bu daan wax da koy ndànkal te baat ba day riir da daan muuri di yor yetti kaala yi joor rawaan yaa ngi ko daan faree wàllu ndey joor bu nu yàlla bi na lar xaj sikkim ba ni laas di saflaari wurus moo ko jekk ay paas tubaab bi da yëbbu ko daa am lu ma doon bëgg a wax ci Gabon sëñ Babacar Mbaw agsi boo ñëwee Mayumba sëñ fàllu Fall ma des ca guerre ba moo daan xambal sëñ bi bant yi di root satale yi waaye sëñ Tuubaa ñibbisi na Céyeen Céyeen Jolof sëñ Fallou Fall moo daan daaj kees yi daa mujj bant nangul ko mu am na ku mu jàppanteel ku mu jàppanteel ci dongo yi dañoo toom yàgg sëñ Tuubaa ni tëll génn ne ana kan moo jàppanteeg Mamadu Fàllu ba ahlu Badrin wër sama kër gi ñu ne ko diw mu ne na ko tuubal ndax niñ ma miine lañ ko miine dara mayu ko ko lu loolu fi may tëje duma guddal parce que ñun nun noo organiser Baye Ibra sëñ Saliou Ndiaye ngi nii kii sëñ Moodu Ablaye sotti ko ci moom te kooku mooy mooy sëñ ma Lamine Diop dagana ci Seex Rafaal sëñ Moodu Ablaye sëñ Seex Bintu mi dafa def benn bis ci laminance ma ne waroon na tey bu 4 avril jotee te loolu wax naa ko ba tey waroon na nu defal sëñ Moodu Fall sëñ sëñ Ablaye Fall Ndar jaajëf Baye Fall yëppay ñëw ki la dañuy ñëw waaw sëñ Murit Mbay moom sëñ Abdou Karim borom jëf jël mu ngi noonu aksi di murit waaw sëñ murit ñëwal monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mi ngi woote ah, xaaral ma jox la ko Baye Ibra waaw waaw woote mooy ministre bi Aly Ngouille Ndiaye nee naa leen démb moom buur la woon démb waaye buur la tey xam na kuréel gi kuréel gi xam na ko kuréel gi kuréel gi xam na ko ñu ngi koy séeri na lu ñu na ñëw gars yi ngeen jëf jërë ngeen jëf waa jëf jël damay wàcc sama kàddu saam faal bi nag day continuer tey jërë jëf jërë ngeen jëf ah lii nag mustaam lii moom c'est la première fois lii mustaam ci kuréel gi barke Serigne Touba. waaw dégg ngeen Baye Fall yi Aly Ngouille Ndiaye nee na bisu Cheikh Rafal bii moo ko waroon a présider ndax moom oh, Cheikh Ibra léppam njaay la ci côté way juróom waaye daa am empêchement waaye ñi fi teew doy nañ ko sëkk ak Baye Fall yi mi ngi nuyu sëñ Saliou ak sëñ seex Bintu di nuyu ñoom sëñ Mouride mbay sëñ baabakar mbaw waaye di beral nuyoo sëñ Youssou Diop sëñ Youssou yaa gisul tarxiya gépp ak soxna Soda monsieur le monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye nee na mi ngi leen di nuyu ok fi may tëjee conseil spécial am la yebal nii Cheikh nee na weeru koor la ko jox 47 millions ne ko kër seex Rafal gu ne na am ñaari millions xaalis général de Baye Fall fukki millions ak juróom liggéeyal sëñ Tuubaa joo joxul seex Ibra addiye mënta ne liggéeyal sëñ Tuubaa joo joxul Cheikh Ibra mënta ne fi may tëjee ñun murit yi surtout jeunesse bi ma sañ a waxal na nammaat sunu pas-pas xam ni lii caaxaan sosu ko lii du propagandal sëñ Tuubaa sëriñ Mouride Mbaye mu sëriñ Abdou Karim Mbacke mu sëriñ Fallou Mbacke bal axlaax ah moo moo moo nekk noonu di nuyu fi may tëjee ah. gis nga Baye Ibra waaw ci ñetti minute rek laa koy laa koy laa koy nas hmm. pas-pas bii nu bëgg a dindi ci ñun te li ëpp lu koy dindi muy réseaux sociaux da ngay gis ku topp réseaux sociaux bi di seet di seetaan xasi moroomam parce que benn murit bu nu xas na nga xam ne alali sëñ Tuubaa la ka koy def ma nga bitim réew di ko def ci soxor nu war a am pas-pas nun réseaux sociaux boobu ñu liggéeyal ci sëñ Tuubaa vivification bi Hizbut Tarqiyyah def moo jara TikTok ah. sëñ Muntaxa toog doon sëñ Tuubaa dugg ci salle bi gaa yi yëkkati ab raaya ca kaw mu toog tiim téere bi du raf ak lii mu réussir ci coronavirus eh corona nag Sénégal la ñëw ak ab àdduna bi bis bu mu bis bu mu jub def la ci poosam ah gàmmu gi la jub kasu rajo ba njëkk a taxaw ci wetam corona ne ko doo am maay corona ñu ne ko monsieur Saabaan jot na de bi su ma am Cerno corona ne ko doo am dem ba Màkka tëj kaaba gi tëj jàkka yi tëj jumaa yi lëmb réew mi moo bari doole waaye bis yëpp la tëj ba yem ci benn bis bi tëj corona def ci poosam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 tëdd na bu guddi am lu ko yee ne ko boo fekkiwut sëñ Tuubaa fa mu nekk joxaat ko sa bopp loo jaamoot yàlla yàlla du ko nangu sëñ Modou Lo xëy miraas boppam séddale alalam na ay soxnaam fireeku leen maa ngi dem foo jëm mu ne xawma ko kañ ngay ñëw mu ne xawma ko soo leen ma tegaatee bët damaa gis sëriñ déglul dëkk yim jaar rek jëxal la manding la dox ci gaaw romb Sierra Leone fanaan fa gaaw xëyee ba saralong ba jàlli biri bi laaj Serigne Touba weesu arab yi dox mën a róoya jaari Grand Léo wàcc Grand Popo fanaan likkar Léo xëye bulaama romb kab dimbal ma di seen dunub tëbuk te naa làmbal ma xëye fa jëm komarun ñoon kurmaan ak tamilee ko kurboo ñu néewi mu romb leen tefesu jëm deserweli laaj fa Serigne Touba ñu naan ko baafuli mooy Grand Mbassa bawo Aboja tefe su weesu Abidjan wër suuf sa dox akara tefe su weesu nda laaj sëñ Tuubaa ñu naan ko wiida mu war ca gaali géej gi jaar Lagos jaar ca réew ma akasa kapkoos romb bata dem Douala laajte doomi doomi astawaalo Porto Novo Cotonou Siti Kama romb na leen wàcc Gabon ñu naan comment keroog la laaj Seex Bamba nam sa kayta mu naan ko wéy na kongo naa la séta kookaa tabax taaxi sëriñ Tuubaa ya fa daaru mar naan moo rawoon fa gaaya mu daal di dem Kable Pisa laaj Bamba ñu naan ko yàlla jàng wuy Mayomba mu dem Luango Luango ba dem Mayomba foofa la Modou siyaare Bamba sëñ Modou Lo dagal maa fa dem ah aka neex a wax te neex te naqaree dem Mayomba bi mu yéegee ci bato bato bi lañ ko wax ne ko am na ñuy wàcc Maayomba te ci biir gaal gi la yëgee ni sëriñ bi Maayomba la lañ ko mujjee gis mu wàcc nan lay wàcce moom warta wàcc parce que Maayomba amul port mais dafa def technique daa ñëw ci médecin bi ne ko damaa feebar médecin bi jox ko boîte comprimé ne ko damit ngay naan mu wëlbati ko mëq boîte bépp gémmiñ ga di fuur mu créé malade maladie médecin bi moo ni nañ leen ko wàcce maayomba kon lu mu bëggoon am na ko damay tënk rek gis na bi mu wàccee ñu man boo demee dinañ la wan poste de bi biñ ko téye woon di ko defal ay soins ci la toog ñaari fan daal di génn ne médecin bi may ma ma doxantu. moo nekkoon chef de poste bu Gabon Blaise Diagne Cheikh Ibra ko dimbali nag boroom ngont mi bi muy dox ba yàgg gis ko. Blaise Diagne ne ko salaamaaleykum sëñ Modou Lo da gën a tiit ne ko maaleykum salaam mu ne ko da nga may nuroog sama mbokkum sénégalais mu ne ko bisu tey bii daaw laa génnoon Sénégal di wër sa sëriñ te bu ma ko gisul faatu Blaise na ko kan mooy sa sëriñ mu ne ko Cheikh Ahmadou Bamba te nee nañ fii la ne Blaise na ko wax nga dëgg man de sañu maa dem fam ne foogoon nañ ni sax dundatul dinaa la yóbbu waaye da bàyyi ba ma sol sama tenue ndax dañoo tere ku dugg ci foore bi sans tenue suñ mënuloo daga na xaar ko mu takk ay galom xoolal toll na comme fii liñ dox ñoom ñaar ba Patte d'Oie que li ma lay wax mooy dama koo nat muy dox mu topp ko ba ne ko nag fa ca des sañu ma faa dem Blaise Diagne ko wax sëñ Mourlo na mu ne ko lu tax mu ne ko àll bi fii rab yu danse ñoo fi ne ay les animaux sauvages kon boo fa yàggee dinaa génn ne ki doon faju fii faatu na sëñ Mourlo Dagana pénétré àll bi ñëw da ba sës ci géej gi gisul dara ndege na sëñ Tuubaa ko jege waaye booba xàmmewu ko aw ëkk la ko tegoon ndax lënd yi taq sëriñ bi ak jargoñ yeeg du du dàq bi jàngee lam yëpp du ba ci huwa nabi wa rasul wal xalil wax wal abib wa imam bi sëñ bi ne wa dalil sëñ mu lu daga ne nee na dama ne dàll xëm ndax jillile naa géej gi yëngu gi waaye suuf si ma taxaw sax daa koo koy góor ku ko yëpp tey la nee mu ne ko Modou am nga pëstéef bi mu ximili ko sëñ Modou Lo ne nee na ma summi sama mbubb di ko upp naan wuy sama sang baa ngi mu ne ko ana waa Sénégal sëñ Moussa keroog sax bu doon sëñ Tuubaa bég na ñu ne bég na ndax làkk olof jim gi dégg te tey am na ku mu ko waxal moom lay wax naan keroog la ba njëkk a gis mina rijaal wolof bu naan dama ni dëkk Sénégal ku ne mu laaj ko ko waaye keroog bi mu wàccee fii ci port bi ah ñu toog ba yàgg ñu ne Seex Anta le 11 novembre 1902 Ahmadou Bamba revient au Sénégal honoré de gloire contrairement à ce que croyait le colonisateur le prestige d'Ahmadou Bamba a considérablement grandi aussi la période la plus difficile la plus critique et la plus dangereuse de la vie du marabout port bi tëju deux heures ba trois heures kenn mënu laa wax dara bato baa ngi taxaw mi ngi tudd ville de Masio bi ko yóbbu moo tudd ville de Pernambouc mi ngi guddee woon quatre vingt quatorze mètres yaatoo onze mètres virgule cinq ki ko doon dawal mi ngi tudd Roux gaal gi mille chevaux la jaune brut la c'est un bord de ce neveur de la marchande mais le bateau porte le nom d'une ville de Brésil fi mu ne bu ñu doon waxtaanee tasawuf duma toog fii xawma ci dara bu dee fiq xaw ma ci dara sëriñ beeg téere xam-xam yu garaaw yooyu jox leen ko gaay yi mais géej gi tukki bi woo leen ma woo leen ma loolu la yàlla def ñu toog ba yàgg tubaab yi na ana Cheikh Anta li may wax bàyyi sama Mbaw ma ko wax sëñ Muudu Maamu na ko wax suñ gaawaan a ngi sol grand mbubb ba xam bu ñu gome nee na bi ñu ne ma seexanta dama ne maa ngi ñu ne ko kaay wuyu sëñ Tuubaa ci kuñ doon wax ñibbisiwul Cheikh Ibra Fall ñëw ba laal bato bi waaf ci escalier yi na ah sëñ namm naa ko borom gontu ah sëñ Bamba namm naa ko njañam loolu nga xam ni saa yu kàndangee aras jaayu kursu yëngu koo koy góor may ma ñaar rek damay bëgg a wàcce micro ñaar rek mhm. doon lil mhm. <laughs> jërëjëf sëñ Saliou Fall joxal ma ko Cheikh Ibra Fall xemmem laa foofu maam Cheikh Anta na li tubaab bi gaaw gaaw di yéeg escalier yi maa ko gën a yàkkamti tubaab bi jiitu mu topp ko ba ubbi néeg ne ko fii la ne sëñ gaawaan ne ubbeet néeg bi nee na ma gis sama mag ja ca koñu gaal ga tuutiwaay bi yokk perkaal bi mu sol mi ngi tax mi ngi tafu ci yaram bi nee na nag mu muuñ ma ma gis kaala gi tas ba jibbi feeñ sëñ gaawaan nee na antanatuma ko samay tànk dam ma raam uti ko jooy mu ne ma seex ma ne ko mbàkke mu ne ko bul jooy waat naa wàcc wàccaale ku ma yaakaar seex tukki bii metti na waaye waxuma fa lu ñu leen di xeebe ëllëg dal ne ko nag sama tànk yi ba ñu ma ko toppaat dal ne ko nag seex mu ne ko mbàkke mu ne ko bu yow mal xiyaamee di ngeen xam ni tukki woon naa asalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf cëy waa ma ni ma ne julli gii mas na am bi Seex Ibra Faal mas am ay eh, sañ Yuusuf yal na yàlla yàgg fi sëñ Muntaxa ajara sooda sëñ Saliou Ndiaye jege si ma euh, tubaarkalla macha allah mënoo xam sëriñ Tuubaa mukk te jaaru Cheikh Ibra wax naa leen demal Amadou Ngoone maamam demal atumal Amadou Fall Sayer Ndiaye léegi nag sëriñ Saliou yëgal mbooloo mi rek nii sëñ Babacar Mbow ndeysaan mi ngi nii toog ba may ñëw ndéem booba booba yaa nga ca France ma romb mboojeen ñëw dëkk ba naan ndéem ndéem fa la móor ngay dëkk ak ba ci géey mu daan ñëw sànd ak lal wurus ñu nga xam naa leen waaye ba ma lay xam yow du fii fépp ca France la nga fi liggéey Cheikh Rafal ñu indi la mission Sénégal dafa am la jëloon France rek waaye tey yaa ngi liggéey Sëñ Tuubaa ku gis exposition bi am fii tey da nga xam ni kii ci gaay Cheikh bi la bokk waaye Sëñ Saliou Ndiaye moom sëñ Moodu Ablaye Fall ma ma xamoon kër Cheikh Ibra jeg mu ne ci sëñ Moodu Ablaye woo ñu di Cheikh Bintu bi Bintu sëriñ Cheikh waa ji ma boole woon ak moom génn àdduna dafa jàpp sama loxo muy Cheikh Tall ñu fekk mu toog na xamantee la kii man na fanweer ak de li ma Cheikh Ibra ma ne ko am xamantee la kii Cheikh Ibrahima am mu jox ba àdduna jox tey fii waaye ñu ngi ñaan nit gudd fan sa yaa ak sa mbokk bii toog di sëñ Saliou li nga def ci Parcelles Assainies ñëpp teg nañ seen bët gone yi toog yëpp jubluñu ndax ñu ndax yow waaye sëñ Saliou euh, dañuy tënk rek ndax suba c'est un grand événement maam wax na ko léegi prière des Cheikh sur l'océan Atlantique géej gaa gi nii ku weddi yóbbul sab der mbaa sab si jaada rek nga xool sëñ Saliou kon yow lañ jox kàddu gi nag waaye ñoo ngi siyaaree Murit Mbay ana Cheikh Murit mu sëñ bi Karim Mbakke ma nga nee toog jàmbar ji moom it yàlla dogal na bi ñuy xamante Allemagne la ñu xamante muy régler situation bi solu yëre Baye Fall tubaab di ko foto lu doy waar nga loolu dinaa ci dil sax eh, sëñ sëñ sëñ Saliou yow lañ jox kàddu gi nga ubbi nu ci Cheikh Ibra Fall bu nu pare nag jox kilifa yi nu ñaanal ndax suba dañuy préparé te sikirulaa yëpp ñu ngi fii tey fii la ñu fanaan suñ seex bintu ah waaw waaw moom waaw ni ngeen ko bëgg rek yéen kay faal yéene joxe sëñ Saliou kon ñu jox kàddu bisimilah ay jege si jege si lu nii waaw yu ubbil ko ci laa ilaaha illallaah mënut a ñàkk de laa ilaaha illallaah